nuyu président Odekav bu mu yéggee mako ci président Orkav ak Onkav Waye beral Nuyo, président ASC yi nga xamné tayji ñom ñoy recevoir seeni subvention ci nuyoo bobu ñu ma la petite catégorie te dégg naa leen ñu wax fii léegi mooy rakku ñi ndax fàttewuñ leen te incha allahu rabbi dinañ ca ñëw kàddu yi kàddu jaajëfal jeunesse bi la man damay an kontante pour ma jàkkarloo ak jeunesse su commune su Diass pour que ma déglu leen ñoom ñu wax su ko defee bu ma wéete ak équipe bi nga xam ne mooy équipe municipale bi ñu xool lan lañ ci war a taxawee parce que lii monsieur le maire du moom mais c'est le conseil municipal ñoo liggéey liggéey bii ndax buñ ma ko yombalul woon kon du sotti kon remerciement bi yépp boo leen ma ko joxee dam koy dellowaat équipe bi nga xam ne ñoom laa àndal di liggéey ak ñoom bi ñu mën a am résultat yi parce que maire dafay exécuter li nga xam ne ni moom lañ ko sant te bi nga xam ne Malick wax na ko bi mbir mi ñëwee la ma ca xalaat aussi ba ma ca waxtaane ak ñoom dañ ma ko yombalal kon dinaa leen gërëm sant leen sant bu amul àpp lépp yéen la di wax ne neena damay sawar jakarlo ak sama jeunesse parce que ñu ni neen la yena ko wax damay faral di wax ne ak lu mu metti nañu andi ay idée yo xamne ne nañu ne buñ ko teggee ci table bi ñepp gis ci seen bop lolu mo waral concertation bu yàgg bi kon président commission jeunesse sport Ibrahima sek ma ngi la ci gëreum parce que concertation bëgg a defar lu baax moo tax lépp lu ñuy def dama koy naan wool président zone yi ngeen waxtaan ci ngeen jël ci seen avi parce que nit boo koy defaral aussi da ngay fexe ba mu orienté ci li nga xam ne jàpp na ne même bu ñu amulee moyens yi ñu dem ko wuuti te wax nañ ko am na lu bëri loo xam ne def nañ ko te ñoom ñu lim ko bu ñu yemoon rek ne maanaam ci budget bi lii la ñu may kon amaanaa yu bëri duñ ko woon mën a def mais damay naan lu jeunesse yi bëgg ñun luñ ci man dinañ ci jéem a def suñu kemtalaay kàttan mais yàlla rek moo matale euh, wax ngeen ne ngeen monsieur le maire kontaan nañu mais yokkal loxo incha allahu rabi lu ma ci man ak équipe bi dinañ ko def ngir jéem a dabu li nga xam ne lii mooy soxla askan bi parce que loolu moo tax ñu toog fii loolu moo tax ñu toog fii loolu moo tax ñun dañ leen di suivre de près même débat yi ngeen di mone ci réseau sociaux yi dama koy suivre parce que léeg ma jële ci loo xam ne li xaw ma ko woon ma ne à ah kon nag am na ku rotal loo xam ne li kon loolu dama koy noté moo tax critique positif am solo mais négatif damay jàppane du ay critique parce que dañoo contre maire c'est des critiques pour que maire gën a xoolaat boppam xoolaat taxawaayam kon nag vraiment euh, li ñu waroon a wax yëpp wax nañ ko ñun ay sportif lañu xam ngeen ko bu baax a baax ma ñëw waxtaan ak conseil municipal bi ne lépp lu fi monsieur le maire defoon luñ ci yokkul duñ ko wàññi te jéem a yokk lañuy def parce que bu ñu taxawee fu mu taxawoon kon dafay mel ni liggéeyuñu moo tax lu ñu fekk mu taxawal bu dee benn brique la buñ ci mënee teg ay brique bi mu nekk étage dañ ko jéem waaye nañu fàttaliku toujours ne yàlla rek moo mën a mëtal ah di wax ne nag ñun dañuy bëgg a dem ci terrain ni ko ñëpp waxee parce que ñun ay sportif lañu man bu ma sañoon zone bu ne au moins ma dem seetaani fa ay match loolu bëgg naa ko bëgg naa ko ànd ak équipe bi ñu dem zone bu nekk fekki fa match seetaan ko te incha allah dañ ko def mais xam nga lan moo metti mooy boo invité maire ci match match bi toj gars yi sax du ñu du ñu filmer sax gars yi daw yi maire di daw moom la ñuy filmer maire buy daw euh, jaaduwul. te dañuy bëgg a dem seetaani match parce que sportif lañ dañ ko bëgg suñu biir xol gis nga li ñu def nii wallaay bu ñu amoon lu ko ëpp ñu defal leen ko bu ñu sañoon jeunesse su commune Diass kenn du leen gën ci Sénégal bu ñu sañoon jeunesse su commune Diass ñu am boo xam ne bi benn jeune commune amu ko ci Sénégal